abonnez-vous ciao le Sénégal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ngeen ko déggé xamné eh, nit ku fi ko la wayé bi la yoon ku ñu ràññee la ci écran yi mu doon Daba Boye doonoon benn voyante bu ñu doon wax Daba boy di ko taalibeeb Serigne Fallou Mbacké bi moo fi bàyyeekoo ci ab dëggandeem nee nañu dafa feebaroon ba tax na doon na loo xam ne lu bett askanu Sénégal la rawatina ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyandool ci Sen TV ndax ay fan kenn gisatu ko woon ci lay écran ba dañu doon dee di def rediffusion li nga xam ne moom moo di ay émission euh, yàlla mi nga xam ne nag bu soxlaa jaam soxla jaam bi dafay ñàkk yàlla am moo ko fi jëlee ñu koy ñaan ñu di yàlla xare ko ci àjjanaay firdawsi